dañ déjà dañuy sant yàlla ah alhamdulilah ala kulli haalin comme waxuma sax si li muy représenté moom mais si devoir julit ak moroomu julitam ak euh, espoir bi nga xam nit ñi am nañ ko ci président Sonko ñu ñëpp ñu am ko. je pense que loolu lu ñuy naatable quoi xam nga loolu lu am solo la mais li am solo rek ba sénégalais war ko xam mooy man je pense que li ñu soxla actuellement du ñëw fii di pleurnicher quoi wala di xool président Sonko ndax jóg na ndax mi ngi li ñu soxla mooy. Soxna Mbotoor jóge ci pouvoir bi te loolu mooy combat bi quoi on n'a pas besoin d'être là à pleurnicher wala nekk fi di xool leneen lu dul fexe continuer combat bi quoi parce que à chaque fois bu ñu demee ba war a mën a régler problème mu Sénégal rek après dañuy mujj bàyyiwaat Macky Sall pouvoir boo xamante ni si ñun ñi nga xam ñun ñoo nekk ñoo ñoo exposé wu suñu kaw lay jëmaat plus de son saara ngi nii tey presque boo seetee li ñu defeere ci ay jeunes mat na cent soixante quinze jeunes wala cent quarante jeunes yoo xam dañ leen defeere pour lan yëpp la FAPAS si vous vous bi ñuy dem di voter loi pour criminaliser manifest manifestation euh, non autorisée criminaliser ay kii euh, euh, place de l' assemblée nationale ñun ñoo fa demoon taxaw si buntu assemblée nationale bi on était quatre les gens noonu comprendre ñu woon li ñu doon xeex ñu dóor ñu si gaañ ñu yóbbu ñu camp Abdou Diassé ñu ñu comprendre ñu mais actuellement je pense que jot na pour ñu xam ni xeex dañ koy yeggali booy bëri mbër mu mel ni Balla Gaye boo demee ba ba mu def trois trois appui su ma waaye da ngay yeggali li ngay def te ci loolu lañ nekk. na Sénégalais yi comprendre ne xeex amul taxaw da ngay xeex mu mat kenn mënul comprendre lii ban genre xeex la man damay wax ñun ñëpp ñu ngi si terrain bi di xeex ñu ngi xeex quoi c'est pas du ñëpp ay affiché wu ci écran yi pour xeex mais nag xeex day mat quoi day egg may waxaat encore ne ñun ñu ngi ko seqal ce sont des voyous la différence entre les les forces de l'ordre la ak Ousmane Sonko xam nga lan la ñoom seen salaire moo tax ñu def li ñuy def parce que xam ne ordre yi ñu leen di jox dafa du ordre quoi te ñoom ñu ngi koy respecté lu tax ñu koy respecté parce que dañu bañ ku leen dàq lu tax ñu bañ ku leen dàq parce que dañuy lijjanti dépp ne ko diix te pourtant loolu noonu tax na président Ousmane Sonko moom am njaboot te dafa xeexal Sénégal ba ñu rajee ko dàq ko mu bàyyi njabootam bàyyi lépp sacrifié wu pour Sénégal ñoom les le le les agents les policiers là qu'on se dise la vérité quoi agent bi brigade d'intervention policière yow tak nga kagul sol casque yor nga arme automatique def ci ba réel sol ay kagul taxaw ci te on t'a entraîné des années pour lan pour nga attaquer benn waay yoo xamante ne nii la sol bu weex yorul dara lu dul portable ci poosam yow loolu mooy sa nguur quoi di jaay karaté di naaw di jaay loolu loolu loolu lan la quoi loolu loolu ban image la loolu ça veut dire quoi parce que il faut ngeen comprendre lan moo leen utale ñoom lan moo leen utale ñoom ak ñi respecté institution yi bu fekkee ni yow respecté woon yi lan moo la utale xale bu bi taxaw ci mbedd bi di prostitué wu parce que lu lu ñu yóbbu seen kër moo tax ñuy def loolu te ñun bàyyi nañ li ñu yóbbu suñu kër ndax Sénégal jot na ñoom aussi ñu bàyyi li ñu yóbbu seen kër ndax Sénégal koo cooxal da nga laan man dañ may dàq dañ may nangam dañ may nangam mais Sonko dañ ko dàq et tant d'autres ñun dañuy emprisonné dañuy dóor dañuy def lu nekk ñoom nañ def loolu ndax Sénégal kan moo respecté institution yi nañ waxante dëgg lan la leen Sénégal di jaral ñoom tey lan la leen Sénégal di jaral tey li dal président Sonko nii mais attends mais ana Mame Mbaye Niang yow sàcc nga nga sàcc àllu Sénégal waxtuñ dara ngay porte plainte ay nit en plus ñu wax encore yow ñu lay dooleel di naxasal ñi nga xamante ñooy xeexal Sénégal léegi nag li xew démb ñëpp gis nañ ko je pense que bu doyul indi na ay grenade indi na ay bien armé dem na Turquie ut na nangam nangam après lan la qu'est-ce qui s'est passé hier ñoom fan lañ nekkoon kenn mun rester peuple le peuple est souverain donc léegi benn affaire rek moo des mooy pour booy comprendre ko quoi am na wax yoo xamante ni kenn du leen ko wax wax ju yeeg dof moo ko moom wax ju yeeg dof moo ko moom xeex day mat xeex day mat may wax nag képp koo xam ne yaa ngi Sénégal nga xam ne li Macky Sall nekk du dëgg kuy mbër mu mel ni Balla gis ku ko mën a daan da nga ko boobu mu amul loo def mën nga am ndomb boo ko jox mu takk te kooku Ousmane Sonko la lu ci nit am na nga taxaw ñu ànd président Ousmane Sonko ñu jële fi Macky ci fulla loolu mooy fulla quoi loolu daal laa mën a wax jërë ngeen jëf